seet lu sa ëllëg sa xel du ca dem fu po nekk rek yaa nga ca fu bànneex nekk yaa nga ca fu waxtaan nekk yaa nga ca fu mbirum àdduna mu mu doon rek yaa nga ca te doo dellu si ba yedd sa borom sa bopp mukk wala nga jàjju sëñ bi nag nee na mooy yàlla ba mooy yàlla jeex gi ci gën a bon mooy gi wawal xol gi wawal xol mooy gi fàttaloo nit ki yàlla mooy gi ko gën a xërloo ci àdduna wala po mi nga xam ne bu ci nekkee day fàtte julli fàtte jox la leneen bokk na ci itam xam adduna gi xam goo xam ne dangay xam xàmmee li ciy nuru dara te du dara ak li ciy dara am itam bokk na ci jikko yi nga xam ne itam yi jox nit valeur la moo di muñ bu doom aadama yi demee nag ba nga xam ne valeur yooyu dañ koo teg ci suuf dëggaate ko ba nga xam ne kenn dootu xam ni mu amee solo boo dee am ak nit ki doo tànn borom jikko yooyu nga xam ne daf lay jëriñ li ngay tànn mooy ku lay mel a jëriñal àdduna xam ne boobu yàqu-yàqoo ngoor ak njuumte ndax maam cheikh dafa ne laa tattaxis uxayya min sadiqi li ajli dafi shiddatin wa diqi booy wut xarit na nga seet ki nga xam ne da nga jëriñ ci moom jëriñ ci moom ci ay jikkoom ak meloom ak i waxam nga xaritoo ko mu jubbanti la jëriñ la ci àdduna jëriñ la àllaaxira waaye bu ko def rek ngir bëgg dàq am ñàkk wala dàq coono wala wut wërsëg loolu dafa delloo si valeur yi nga xam ne moo fi nekkoon démb ak bërki démb ñu daan ko toppatoo di ko seet teg ko fu am solo te léegi ñu dem ba ni ma waxee rek ne fañ waroon teg yàlla xaalis lañ fa teg loolu lépp nu daal koy fàtte xale yi mujj juddu nag ñoom ñoo koy gën a umpale ñu ko teg muy dara nga xam ne dafa farlu ci jaamu yàlla dañ naan dafa fanatique dafa tarde dafa yeewul te fekk ne kooku rek yeewu